وي وخني كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامه واو نانا دا فامل ني جانت بو نيك سي ديغو نجولور رك كين مانوكو تك بتم واو سوني ني رك فورس nga nga واتي هات ساي بت ني يونت بي صلى الله عليه وسلم نونو لا ميلون كين مانوكو خول ني جاك خول كو نونو واي يونت يالا يوسف عليه السلام موم نيت مانون نكو ديف نونو يالا واخ سي القران ني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات نينا يوننتي من مالين يوني واي من ما خمني دانيو غننتي من ما غنلانتي سين ديغنتي امنا ني ني تودي اولو العزم وا اولو العزم من الرسل نيب خمنا ني لين جوروم لانو يوننتي nga xamne yalla tuduna len ci alquran ñaar fuk ak juroom mu jallar biku ñaar fuk ak juroom yoy mu tan ci juroom jallar biku juroom yoy mu tan ci kenn te kooku mooy sang bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mu gën ñëpp yonent bi mujj ñëw sax di yonent yàlla Isa alayhi salaam présenté na ko wax na ko waaw nee na su ma fi jógee dana am beneen yonent boo xam ne moom la ñuy tuddee Ahmad te kooku mooy Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla wax ne moom yonent bi mooy leer. moy jant bi nga xamne ci lañuy hamne leerloo lerlo. lamp bi nga xamne ci lañuy ñuy leerloo mu wax ko ci alquran qad jaakum min allahi nurun wa kitabun mubin koku moy nur? fa moom mooy yonent bi salallahu alayhi Wasallam. ndax kep ko xamne japp jaarul ci yonent bi salallahu alayhi Wasallam. forcé mu mu gabaju forcé mu dugg ci pax wala forcé deg jam ko forcé rek nga jël sa tank tek ko ci tanki mustafa salallahu alayhi Wasallam. ludul lolu nga gabaju wala deg jam la kii mooy yónent bi nga xam ne bi ko yàlla yónnee wala boog bi mu juddoo àddina bi lépp dafa soppeeku waaw loolu ñi jàng history xam nañu ko bi yónent bi saa salaam juddoo even palaas yi nga xam ne yónent bi nekkut fa woon te caaxaan daan fa dox yàlla dafa wane science néeg boo xam ne dañ fa daan jaamu xërëm néeg bi dafa toog rek xar parce que yónent bi saa salaam juddu na safara woo xam ne dañ ko daan jaamu ñu toog safara yépp fay ñu taal ta takati parce que yonent bi sallallahu alayhi judd waaw kera ba nga xamé né abraha tok na ci abisinia ya, ñaan japp ko mu ne damay ñëw toj ci kaaba gi waaw ndax mbolo mi nga xamné ne la kaaba gi am lool duma alaw mu am ko fi te man may buur bi loolu fekk yonent bi mu ngi bëgg ñëw ci yalla wane mandar gané ku baax nga bëgg ñëw ci yalla dafa yebal njanaaw yi ay picc ñu jël seeni docc sànni koko ko rey leen ñom ñom ñoom ami bob yeb ñu rey len alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul koku moy kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ñëw togn mo dajon ci adina bi boba togn rek waaw ku upp doole yow rek yaay dund ku néew doole doto doto dundati waaw ku am yaay dund ku ñàkk dootu dundati waaw ku la neex nga rey ku la neex nga jël alalam ku la maanaam daal comme la nga xam ne moom la firaaw na daan def waaw ku ko neex mu mu dundal ku ko neex mu rey dogal na léegi jigéen góor gu juddu nañ la rey jigéen ju juddu nañ la bàyyi waaw waaw yu yoona rijaal wa yu wa yumiitoona uh, uh, nisa di dundal góor ñi wala bok di gassa di ray góor ñi di dundal jigen ñi loolu la fi fir'auna nekké won jamono bobu bi yonent bi saa sallam di ñëw arab yi ci loolu lañu doon dund motax bi mu ñewé yàlla indi aya bobu ne wa'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wadkuru nicmata allahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana waaw man man man soose maa gën ku dul soose waaw man wolof laa maa gën ku dul wolof man joolaa laa maa gën ku joolaa man pël laa maa gën ku man saraxule laa loolu réer réer raw ko man réew sàngam laa dëkk maa gën maa dëkk ku dul man tariqa sàngam laa bokk maa gën ku dul loolu man deret sàngam laa bokk loolu du wax loolu dafa mel ni da history dafay indi indihaat boppam lolu motax alquranul karim wax ñu ko ne amna ñu ñu jitu non lañ daan def wa qalatil yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat an nasara laysat laysat al yahud ala shay'in wa hum yatluuna alkitaaba lolu dafa xewon balaw lislaam ñëw mu melni lolu mu ngi ñewat ci sunu bir ta yonent bi sallam lolu la fi ñeuk didi lolu loolu la ñuy loolu la ñuy tuddee feebaru jaahiliya waaw nga xeb nit ta xeebeewuloo ko ne gëmut yàlla xeebeewuloo ko ne topput yàlla xeebe lu dul nga xeebee ko ne deret ji mu bokk wala dëkk bu mu bokk wala tribe bi mu bokk wala làkk bi muy bi mu bokk loolu euh, mooy réer gi nga xam ne bi yonent bi di ñëw lëndëm googu la fekkoon ci àddina bi ba tey loolu mu ngi dund yonent bi saa bi muy ñëw shirk moo daan dox booba nit ñi xamuñ yàlla danga daan tibb ci suuf si tabax ko tuddee ko yàlla wala nga jël ci bant yi et ko tuddee ko yàlla xam nga dellu gannaawu doomu aadama paase wut foofu seetal de nit ba muy nite li nga liggéey moom moo la moo la war a jëriñ li nga liggéey moo la war a jaamu waaye nga liggéey dara ba pare jàllar bi ku loolu nekk sa sang nga di ko jaamu ñoom ci jamono boobu la ñu toll woon yett bant ñu def ko ca marché ba jigéen jaa ngay dem ca marché ba jaar ca eh, jaaykati yàlla ya waaw yàlla ñaata mu ne yàlla juróomi dalasi nga waxante ba yàlla ñaari dalasi nga jël yàlla ji foon xam nga loolu rab yi sax àgguñu foofu te doom aadama mos naa toll foofu yonent bi saa salaam génnee ñu ca lëndëm googu moo tax képp kuy nit da nga war a bëgg yonent bi salaa salaam mu gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la ndox mu sedd mi ngay naan waaw parce que lim la defal amul tolloohut ak lenn booba yërmande amutoon yàlla ne ñu moom mooy rahmatul muhda waaw yàlla daf ko yónni daf ko mu yërmande te xam nga ne yërmande ñun ñëpp ci la ñuy dund suñ wér gu yaram gi yërmande la suñ am am bi yërmande la suñ jàmm ji yërmande la te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo symbolise loolu bokk yi bunt bi bunt bu yaatu la wax dëgg yàlla mën nañu cee def waxtaan yu baree bare te du jeex te danañu leen dig incha allahu taala ne feeg weeru gàmm mu ngi fi danañu continuer di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak i meloom ak i jikkoom li ci gën a am solo sax àggaguñu ci mooy melo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak naka lañ ko war a royee ak naka lañ war a gàmmoo loolu lépp incha allah dikk nañ leen ne suñu yàlla mayee bakkan danañ continuer di ko wax ak yéen seen mbokk al oustaz Ousmane Mouhamed Dia moo doon wax ak yéen di ñaan suñu borom lépp lu ñu fi wax yal na dëppoo ak bëgg-bëggam te yàlla bindal ñu ko tiyaabo di dellu ndokkeelati nag waa réew mi yépp nag wax dëgg yàlla ci xew-xew bu am solo bii eh, di ñaan yàlla mu indiwaat ko ci sunu kaw Eh, fekk ñu ngi dund tatal ko man ko eh, yal nañu ko yàlla defal réew mi yal na fi yàlla gën a saxal jàmm gën fee saxal déggoo gën fee saxal naataange eh, musal ñu ci mboolem ay yi nga xam ne dañ koy dégg ci àddina bi tey ñaan yàlla yàlla fay safara yooyu nga xam ne ñu ngi tàkk ci àddina bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa yaa Ousmane. ahlan wa sahlan Mbow. waaw waaye sëñ bi waaye jërëjëf jëfate waaye. jërëjëf Mbow. ah waaye waaye Cheikh Ousmane waaye gàcce ngalaama waaye dëgg dëgg tey li ñu mos a si yonent bi tonni nañu. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf waaye kii mooy ku baax kii ki jar a roy kii mooy ki jar a xam. wallaahi wallaahi waaye xelante ko ñëpp xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax yàlla yónni ko waaye. wallaahi jërëjëf Mbow. waaye ñu ngi seen dars bii. Hmm. moom daal na ngeen ci gën a ba nit ñi ñëpp naan ci leer yoon incha allahu taala yal nañu ci yàlla boole di nga Cheikh Ousmane daal mag ñu baax ñu fi nekkoon jiite wu ñu dara lu may bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lépp lépp rek dañ ko jël rek jox ko yonent bi jël seen bakkanam seen lépp rek dañ ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex tàkk wallahi mbaw maa ngi fàttaliku Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass mu ngi wax ci saari man waa ndeysaan radiyallahu taala ko gund xatalee sonal ko mm-hmm. te dara taxul ñuy sonal ko lu buy yonent mu ne mazaqu jildi jahaara axrajuni min makaani wallahi ndeysaan الله دون ذنب خير ان يخبطها في جناني اه ليس مو دم دي وقت دي وقت بنان لن ينالوا ما ارادوا قد مضى ذا وكفاني اه ليس اه واي دغ دغ دغ يمن يلا فيل سي من امين امين يا رب العالمين امين يا رب العالمين دغ يلا بري لا لون قمت سي يوم تدو ولا لون ني نغي تاي والله يوم ني لا لنج لنج تجلي والله سي عمر والله والله دمي فرال دي وان ني نيغا خامني يلا باخي ني جوغي سي جانغ تو فرال دي لو في جوغي دم سي ريو عربي جانغ جي اه amul kenn ko xam ne ci mbedd mi nañ la fekk rek da dàll la jël dàll la yow. déedéet. fekk na jaar nga ci daara ji yar nañ la toppatoo nañ la jàngal nañ la ba ummahatul kutub foofu nga boo xasee dem xanaa tey la ñuy wax wala sax xanaa gun ñu la ay kii wallahi ndeysaan wallahi waaye fekk na yow bu ba mag ñi defar nañ la bu baax ba ba nga pare wallahi wallahi kon war nañuy bàyyi suñu xel bu baax a baax delluwaat mag ñu ñu njukkal jërëjëf jërëjëf jërëjëf man ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla yàlla yàlla taxawu la jërëjëf jërëjëf